ah <coughs> léegi nag comme dal nañ fële ba faate bi jeex ñu dalaat dugaat ci beneen bokkal mooy bi maanaa comme dañoo génne ji pays ñu dugaat ci beneen pays léegi nag ba bële mooy pays kan mooy pays waa ji nga xam ne mooy numéro un léegi fu ñu jëm nag ñu ngi dem ci pays numéro deux numéro de nag moom dafa soxla ñaar ñu def fi salaat numéro un moom moom ñu defal ko rek mooy faatihatul faatiha moo tax mu nekk juróom-ñaari aaya juróom-ñaari aaya fa sab antala sab almasaniya jahratan juróom-ñaar la jël jànge ko juróom-ñaar ci fàngaaral walillahi ma axla sifaati sifaati la ilaha illallah kii moo dikk de melow melow ya yow nag yow xamuloo yow mii nag yow nit mii nag wallaay waaje moo tabe may na la lépp la ko def yam takkoon ba jànge ko juróom-ñaari aaya may na la ko yow mii kat soo yëgee soo yégul yow nag boo gisee ñun nag suñ njàng mii baax naa déglu nga seetaat sa bopp ndax man man ndax man am naa li am dit ndaxte lan mooy juróom-ñaari melo ya mooy lan dund alxayaat dund melo la euh, dégg nga al ilmu xam-xam melo la al iraada nammeel mooy suwaa melo la al quwwatu doole ndax doole mas kaa gis euh, kilo doole et de qudratu muy qudratu muy qudratu qudratu mooy quwat qudratu melo la dégg melo la gis melo la wax melo la du juróom juróom juróom-ñeenti juróom-ñaari melo léegi nag nu mu la ko defal mu jox la ruuxu connecté la ca dund ga ah ñu ne dund la de mu jël xel poosel la connecté la ca xam-xam nga ne a xàmme na mu jël nag iraada poosel la xol connecté ko ci nga am nag de tànn tànn tànn tànn tànn bëgg naa lii bëgguma laa mu jël nag doole indi naf subi insaan mi nga xam ne moo mën a yenoo asamaan soo mu indi doole jox indi insaan bi dal ko ca wàcc moo tax mu doolewu mu jël nag di nga maam dégg jox la nopp moo tax nopp du dégg ñii may li ma wax yow ay cër yooyu yore la ñu jox la ko pour man la bëgg la ci wàccal ay bagages wàccal ñu ko la ci dégg ngay dégg mu jël gis jox la ñaari lumière moom ndax te par ñaar borom ñaar ñaar la mu lay may par ñaar ñaaram wa min kulli shay'in khalaqnaa zawjayni mu joxaat la ñaar dégg nga maam daal ci da am connecté nga gis ne ah ma yëf yi moom leer na de. mu jël nag di nga maam li nga xamante ni moom mooy euh, fóon bi nga xam ne ci la ñu may xamee ndaxte yëpp xamee mu dal ci connecté nag li nga xamante ni moom nag ah mooy ah, ah mooy noqi mu dal ko jox mu dal ko indi foofu ndaxte mu ubbi la ñaari pexe bakkan nag ndax mu ñoom Mouhamad rawul gis wala ndax ñoom ñaar ñooy am daway kaay rawul xaq bi ak rawul asam bi dañu war a am fu ñuy jaar di génn dama ko dikk ndaxte ñoom ñooy waagante diggante xaalamul xaalamul ak yow nag een faut nga ubbi leen ñaari waay ñuy génn di daw di dem ci suuf di daal di jox jox yàlla ay information kon ñu jox la ko ñu jox nag lan bu ci tegee mu daal di am nag muy lan muy ah, kile gémmiñ mu bëgg a wàcce la làmmiñ laa ka wax mu jox la nag gémmiñ ak làmmiñ andi nag benn benn ju 32 daa wërale bu ne ko eh, yow na yaa nag eh, mbooleem ñi ma wàcce yaa ca gën a daase foo xay xamee yaa ca bokk soo doon fattaxay du am yow nag damaa bëgg nga yem nag mu daal na ko nag jël na ko da ko tëjal na ko ah. Ah. nag léegi sa mu jox la nag juróom-ñaar yi nga am mu jox la ci juróom-ñaaram ya kon nag yow lii kon nag moo tax yow da ngay def tilaawa yow doo def kiraa fatiha fatiha bi boo ko jàng daf lay li muy daf lay daf lay wan rek luy fatiha ah. waaye fatiha bi ay xaraf laa ki baat kon daf lay wan nag lam lay wan nag nga cay def tilaawa mooy da ngay dikk na yële mel nga dikk melo xoo ko boo ko defee fa saf on tala saf almasaani kon juróom-ñaar moo dikk def tilaawa tilaawatu mooy tëlawun da ngay dikk ma ngay taqalux moo tax yonent bi ñu ne ko seen ñu ne ko sawaa ji nu mel mu ne xuluquhu alquran moom jëmmi quran la moo tax nag kon wa innaka la ala xuluqin yow nité bi lay boobu ma ngi koy tagg Muhammad ba nga xam ne mooy Muhammad nité ba nité boobu nga xam ne mooy Muhammad Muhammad dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom moo dikk taataan juróom-ñaar yooyu ci juróom-ñaar ak yi yow nag mu dikk nag jël xalifaam ba xodd ko loola ne ko ayo yow nit nag acca yéen a may ut nag ci sama lii nag kon nag yaa dikk yow yeeg yow fii nag ba nga demee dugg ci faatihatul kitaab ba pare ah waaye ma ne ah man de wàcc naa waaye xam fu ma de ah, el eh, foo nga jëm de da dox de fii pay bi lëndëm la di nga ne ko allahuma yow alam ñun ah seetal te kat yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu yéen nag yéen ngeen ñun ñi xam ne iman def leen salaatu salaam ah waaw lu tax nag faatihatu salaatu faatih ba mu xamut xamut salaam ah bi nga xam ne mooy pay numéro 2 bi pay numéro 3 ci la ñuy defee salaam waaye pay bii moom nañ indi rek ndaxte ka sant liggéey ba moo tax mu defee ko noonu ka sant liggéey ba moom moo tax mu defee ko amut liggéey seetal inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ndax am na salaam salaatu rek fa nekk huwa allazi yusalla alaykum wa malaikatu yukhrijukum min as-zulumati ila an-nur ndax am na salaam déedéet yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima muy troisième fois kon na woon ni ma la ko waxee kon nag troisième bi moom na ma am salaatu wa salaam waaye yow ku duggut fii mën naa xam lu tax ak fu ñuy waxee salaatu wa salaam kon nag boo dëkk fekkuloo salaatu fa tey nga ne wala tax moo fi gën te amul fa ah fa jëm see tax fa mu jëm see nga dikk rek yow xam nga seetal allahu rek la kële waxoon moom mu jël nag benn miim croisé ko ca xaaba ne allahu ma yow laa salli ala sayyidina muhammadin defal sa salaatu ban salaatu salaat day dina firi xéwal salaat day dina firi jokkoo salaat dina firi rukook sujjóot kon nag ban nga ci wax même salaatu ndax dañ ko firee booy dema ba firi dina firi jaaro kon nag ban nga ma wax kon de bi may wax man mooy defal sa salaatu mooy tëjandil jokkoofal ci kan ala sayyidina ca sangak naa kan sangak naa ak muhammad ga ñun defuñ salaatu ci muhammad ca sangak naa ga fa lañ tëju sangak naa ga fa lañ ñu naal ñun ñëpp ñu tëju fa moom nag naa boobu mooy huwa huwa moom mooy yusalli aleykum mooy julli ci yéen li yuxrijakum mina sulumaati ila noori nun jullee ci ñun ñun ñoo nekkoon ca ñàkk ka moo tax damay wax ne yow yàlla defal na salaat ci yonent bi defal la ko yow doo balaa ngay toppatoo ni yàlla julee ci yonent doo toppatoo ba xam ne ñu julee ci yow yow mii ñu am kum huwa lazi yusalli alay kum kum kum laa wax moom def salaat ci yéen li yuxrijakum mina zulumaati mu ko defee nag léegi aha ñëwal suñu kër la ko dafa dikk mu jël nag nga am yoo dencoon bagage yama doon lim fële bagage yëpp a ci yow mu jël siru ah roof la ko nga xam siru mu jël ruuxu nga ruuxu ndaxte moo dajale bagage léegi mu jël ruuxu roof la ko nga am ruuxu mu jël xel roof la ko nga am xel mu jël xol roof la ko nga am xol mu jël nit nga dugal la ko nga ne asala nga daga nga daal di jul nag fa fa tabasala basaran ah kon nag ala si xadara fa xadaa wala si juróom ko xalaqa fa sawaa xalaqa fa moo netaalu netaal boo xam ne dafa tolloo kam netaaloo xee moo tax juróom la xam jox la juróom ya moo tax xalaqa fa sawaa juróom la am te door la juróom nga am juróom yéeg yéegi biti ak juróom yéeg yéegi biti biti yu biir ak biti nga doog a taxaw nekk nit de boo ca manqué benn rek ñu ne nit ka nit ku manqué el fo day dof wala leneen kon nag lii mooy insaanu kaamil kon nag ni ko yow yow miy weddi salaatul fatiha wala yow miy weddi nang nangam nag xamuloo nag insaanu naaxis koo dégg nag mu koy def rek mooy ku manqué koo dégg nag mu dugg fii te matul moom itam da ngay xam day xam ne moom nangu la guñ ko salaatul fatiha waaye salaatul fatiha bu ñu la ko nangulee keroog nag dangay nga ñibbi si fii nag nga nekk nag dootoo nekk nit ku ma nit ku ma nit ku man nag day niru ne nit mel xam nga nit lu mel nit bi mu dikkee de xalif de xal de xalif de xaqiqatu xaqiqatu xilaafa feeñat feeñu fi feeñu fi ndax feeñ nit feeñ na fi kon nag xalifa xalifa bi yow yaay xalifatu mooy ndaxte kenn koy da nga wax dañu war a xam aad xaqiqam mooy aadiya aadi xaqiqam mooy muhammadiya muhammadiya xaqiqam mooy amadiya amadiya xaqiqam mooy xilaafatu xilaafatu xaqiqam mooy fan insaan moo tax fii lañ so fii la sosi moo tax fii fa innaka samtul xaq sarqan wa mag rek mooy nag moo di sos fii ci saw sow so kon nag mi jant bi soxee ci sow bii moom mi dikk ci sow mii daf ñuy wan sow bi nga xam ne mooy sow bi mooy nite ah maa la ko wax de soo bëggee laa bëgg soo ko bëggul xam nag bul déglu suñ sunu akbar ah kon nag allahuma defal salla nag kon nag moo tax képp koo xam ne dangay dégg mu juna allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad bam dee du am fët ndaxte yow yow fa nga fa nga xam ne fa nga waroon ñaan ñu tijji la bunt bi ku yorewul caabi ji nga ne ko kaay tijjil ma yow sa caabi sayyiduna Muhammad moo yore caabi ji lay ubbal nga xeeb ko ne man kay faalafuma sa du ma ci dugal sayyidu yow yaa ñàkk teggin xamul ne koo dégg mu ne allahumma salli ala Muhammad bu seetlu woon ci xelam day xam ne xamul teggin baayam dana jaar ci turam papa yaay tonton grand bi même sa mag bi sax doo jaar grand kon nag ku toll nag sa Muhammad nam toll. ak sa yidóom ba nam toll nga ne ko man de jombale naal sa bi yow kay Muhammad laa lay wax rek direct dama lay xam nga ne kooku man daal ci nas ci ñi nga xam ne ñoom bilaay bilaay tubaab yi ñoo bon wallaahi ñi nga xam ne ñoo opposé arabe opposé ba wi opposé yonent bi ba yàqal nit ñi ba amatuñ bëgg a ci ci Seydina Muhammad ñuy wax naan Muhammad de ko def morom yàq na yàqu rëy rëy ñun de dañ ne allahuma yow allahuma ah xam nga kon dee dugg na salli ala sayyidina defal ñu salaat suñ sa sangam naa xat muhammad ga sayyidina muhammadin sangak naa xat muhammad ba ñun de foofu lañ ñaan ko ñu ndaxte foofu lañ tëju moom mu nga xam ne boo bu xoola xanaa xamul ne salaatu mooy ijaat laaw malaaka ba ñu defee salaatu ala nabi nabi bi ci la nabi mu nekk mu mu nekk wujjoon wujjóot boobu nag moom itam ba nga xamante ne mu def na salaatoo mu nekk mawjuud mawjuud boobu nag ñun mooy def salaat ñun ñun mawjuudaat yi da ngay dégg la wax ne bi ak wujjóot bi ak mawjuud bi nooruhu awal wujjóot bi mu wujjóotan moom wujjóot boobu nag mooy huwa huwa moomu nag mooy def salaat ci mawjuudaat yi pour mawjuudaat yi mën a génn seen ñàkk nga ñu dikk ci am ji fii kon na waaye ma ne dañ dégg salaatul fatih kon nag na nga def salaata ala sayyidina muhammad ñu ne ko ah ñu ne ko ayub ñun mësuñu dégg loolu yow Cheikh ci yow lañ dégg nga dégg kooku loolu mooy mu ne alfaati ki nga xam mooy tijji la ma noonu waxee am mu ngi bëgg a feeñ lépp loo xam ne uxuli ko tëjoon ak tëjee sonn ko kooka laa bëgg nga woon ci ñàkk mu branché leen am ñu amam ñu génn ci am si kooku mooy faati lima amu ñax man nag bu may ñaan damay ñaan ca ñaanee kaay ba man kii ma lay fi ma la fa ma tëju mm-hmm. maa ngi ca biir naaka mm-hmm. ndaxte xoolal li lay ne mooy naa mm-hmm. ba nga ne laa ilaha illaa allahu ñu ne lay du foofu de nga ne di ke ne laa ilaha illaa huwa ñu ne la di ke ne laa ilaha anta ñu ne du foofu de ñu ne laa ilaha illaa ana ñu ne yow doo ana de doo ana de xam na ku nekk ana de kuy ana mooy nag wama ana nekkoo man ilaa basar mislukum kooka nag mooy sayyiduna bi man de du ma lu may basar ñu naa ah Muhammadu basar la akal basar <laughs> ah kaa yi nga lii kon nag gis nga xam-xam du lu ñuy liir ci téere yi ban koo dogg kii waa lii nag te lii nag mi ngi nii ne nangi ne mi ngi ne mi ngi ne fànkat yaa ngi koy xool li ñu jox yaa ngi koy xool kon nag fii nag bi mu fi dikkee nag yaa xam ne man damaa tëj woon kon nag ku la ko xamal yow xam nga loolu mooy problème mooy nit dafa am ku ko yootal na ko hey soo bëgg a tëj génnee fi nag dafa am ku ñu fa tëjoon ñun ñëpp moo tax euh, la indi mu ne bàyyi na man maa dikk pour yeewi pour pour tijji prison yi tax mu ne ma ndax ndax damaa tëj ca kasoog Mouhamad Ga ah dégg nga fi fi euh, dégg nga dama caa tëju kon nag ka nekk ca prison bu mag ba xam ne moo nekk ca biir prison wu naaga moo ñu kaay moo xam leen su ngeen bëgg a génn ji nii ngeen def nii ngeen def su ko defee ngeen génn kon nag ko xamul gib bii doo mën a génn fële gib boo xam ne xamul dara eh, xanaa bëgg lu may dara ji ci yow taalibe bi da ngay dee waaye doo génn mukk billaahi ndax moom génn ndax te te nangul dégg gidd ba ndax moom dafa jël gidd ba def ko morom dégg nga maam kaalaak kaalaak bàyyi nga lay kaalaw yetu bàyyi wala yor man maay bàyyi ba ñu naan bàyyi léegi xam nga ñaata bàyyi moo fi nekk bàyyi diw bàyyi Samba bàyyi Demba bàyyi Ibrahima bàyyi kii bàyyi kii bàyyi <laughs> ndaw bàyyi ci biir kër bàyyi moo tax kenn génnu ñu ngi yëpp ñoom génnu ñoom ña ngi ca premier garde ba ñu ngi ca ñu ngi ca biir naaga ndax dañ def daf naa naaga dañ ko def morom moo tax duñ génn mukk waaw toogal rek doo ko def nag daal saal Seydina Alfaati Faati Seydina Muhammad Faati soo koy wax nag danga war a ko doo xam kat mooy sangam naa bi waaye nekk fii da nga maam nekk ci kër ak jàmbur di ko turbale ba pare naan ko dimbali ma ah doo dem de da ngaa war a xam kuy kuy patron ba tëju foofa ak ca naaga nga ne waaw doo ma waxal na génne fii mu ne ah, waxal allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih lima ughliqa ba mu jeex salaatu fatih salaatu fatih ngay jàng ndax moom dañ ko caa jox ndigal wala abdu xallaqiya ayna al ilmi wa jaawul is moom dafa yor dafa yor ndigal bi doori wax mi léegi nag moo tax ku ko wax rek acca ku mu waxal acca waxal na xam rek alfaati ki nga xam ne ubbi lii maa lépp loo xam ne óola xes dama lay ah, la neexee seetal économie mondiale salaatu faatee ba mu génn gul ci jaw ji lu ca am du pétrole du essence du du du du moto vélo euh, euh, euh, mobilette du kaas du oto du dara du du otoraay du dara bañ na alfaati li ma uliqa moom dafa ubbi dafa gannaaw dafa nar a xam si ay gan mu defal leen luñ leen ganale moo tax mu ubbi économie mondiale pour nag ñi nga xam ne mooy ñi gan gan gan ñi nga xam ne ñoo dikk gannaam loolu mu lañ tuddee ummatu muhammad kuñ sant ka kuñ sant ka xam nga ne moos mooy kii def dara waaw ñu ne muhammad rawul gis wal gis mu amada waaw ruum lu mu def waaw kan nag ki def ki kan la kooka nag kooka nag lay wax ne kooka nag mooy kuñ sant ki kooka nag moo dikk nag <laughs> ah moom nag moo dikk ne damay sama dëggalee sama da ngay xam gan gi ak njaatle gi ak ganalekat bi ak ñam yi nga xam ne moom ñu nga lekk naan gi kuloo wasara boo lekk leen naan moo tax ba kar ba ne kuloo wasara boo nga gis nag fi ne lekk ak naan fi ne dangay seen ñaata xeetu naan moo am ñaata xeetu ay lekk ñu am demal ci li nga xamante ni mooy supermarché yi mm-hmm. loo nga fay fekk mm-hmm. doo ne fu bàyyi ko waaw ndax ma sonaam man de man fàtte ko naa mille eh, ndëga mille eh, fàtte naa eh, cinquante année cinquante gisuma ko fàtt sama fàttali ko fàttali mm-hmm. fi ci boo gis nii dara te booba il faati li ma wax la ji nga juddoo na ca faas waaye màggeewul ca faas ga ba mu dikkee nag fa matee mat nag man am ngare la ga nag min tey batil us dii moom génne ca fañ ko nëbboon nag la génn nag okk nag manjol ku la neex na seet nag nag laaj nag gannaaw bu xamante ne faydu bi tàkk na lépp nag mis nag kon nag lépp daal di génn nag bi saayiri sar'i wa noorin mu biin urabi saali kene bi laa katin kon nag dikkal ma jox la ñaar plus ak moyen nga mën a am courant mën a am maarifa mën a am xam-xam mën a jaamu yàlla fii la ma nekk nag ñëw leen <laughs> kon nag ñu ne alfaati li ma am na ñu ne ko nga ne yow ki ñu ki ñu affecté ne moom mooy sangam naan Mahamad mooy tijjili tëju nga ne mooy kan mu ne wal xaatimi li ma sabaq seetal kon ndikke ba muy dikkee am lu ko fi jiitu woon yépp mata doon complément dañ dañ dafa am lu manquoon la ko jiitu dafa am lu manquoon ba mu dikkee mu mottali dama koy firi ñaari firi xaati mi moo dikkoon fekkoon xam nga ruuxu ak ñoom xel ak ñoom xol ak ñoom suru ñi ngi fi nekkoon ma sëkk waaye mënuñoo matal dara kii nag ba mu dikkee nag sàngee leen yaram nag lañ mën a def seen liggéey foofa nag kon nag boo bëgg dem nag boo bëgg a génne ci naag yi da ngay dem nag ca moom ne ko nag man de damaa bëgg a yaama tijji de damaa bëgg liggéey mu xat mu la mu nag kon nag rooga nag mu dikk ah, ko jël sànku nag muy xaatimi li maa sabaq ah jëj waaj yi man kii de kii kii nga de nga de moo la ko wax de moo tax gis nga tasatara fil albaasi fal kawnu kulluhu masaayiru albaati li hasal muqassasi muqassas bi nag mooy mooy mooy fàttali baax rek muqassas bi moom moo moo dugg ci càngaay càng sàngoo càngaay yépp fal kawnu laax de kulluhu léppam masaayiru albaati moo tax ñi nga xam ne ñooy wax da balaa ngay mën a wax da ngaa xam foo wax ji déparé ak fu wax ji toll ak fu mu jëm si su ko defee nag doo ci doo ci wut benn ciiru bakkan ndax tànk yaa nga am ciiru bakkan ci waxi bàyyi rek a wax sutian doo dem nit ñi nak dañ ko waxe waxi alam bakkan ñun de alhamdulilah rabbil alamin ba nga ñun cëru bakkan ñun dee na rayal nañ ñu ko ñu tax ma ko ray dañ ko ray kon nag kooka laa wax de da ngay sel nak fatihatu kitab nam tolo ak salatu fatih kon nak ki xamanteni may qatimi lima sabaq lii ma sabax naas ki may wax mu ne naasiril xaqi bil xaqi ndaxte xaqiqa rek moo mën a taataan xaqiqa waaye xaqiqa tu mën a taataan xaqiqa xaqu xaqiqa moo tax boo déggee ñu ne asama maanaam amaana ba dañ ko jox euh, kile asamaan asamaan mooy xaqatu xaqiqatu muhammadiya bu ci xaqu xaqu bu dikkee du du du du xaqiqa hmm. xaqu lay tudd bu dikkee ci ahmadiya du du ci ahmadiya xaqu ci xilaafa doo tuddati ko mooy xàqu lay moo tax foofu yëpp ay xàq xale yu doon ndaxte xàqu moom kenn attuna ko lu mooy xàqu kon nag xaqiqa attuna moo tax boo dikkee yow fii nag bëgguloo te demoo ci xaqaat xaqaay xii doo dem ci xàq de moom nañ dem fële abal la ndax nga mën a jot ci xàqu ah danga nga leen di fiire de waaw <laughs> noo du sotti de su ko defee nag embouteillage la indi rek <laughs> embouteillage nag noonu la may tee doo jot ci leer <laughs> kon nag léegi nga di nga yow yaay dem booba nag yow mii dem yaay xàgg ci màqaamam naa ci làq bi làq ndaxte yow fi ne nii xàqu moo dikk ci xàqu mu régleel ko li nga xam ne moom la bëggoon yëpp ah ndaxte nit nit moo nit moo dikk réglé li nga xam ne moom moom la amaa amaana bi ñu bëggoon ku ko réglé ku ko réglé du nit waaw léegi euh, asamaan réglé wu ko suuf réglé ko doy réglé wu ko ku ko réglé kon nag yow yaay nit tey yow nit mii nag yaa dikk tey ci tijaaniyatu bi nga xam mooy mooy tijaaniyatu tijaan bi dugg ca ronam ne nag yow laa bëgg yaru ci sa ron ba nga xamante ni man naa ma daal di génn dem xeex ak sama sama sama namruut bi ma xeex ak namruut léegi bu la gémbee nga xeex ak namruut ndaxte xam nga ne Ibrahima boo xamante ne namruut nga xam ne moom moomoon àddina bi yëpp président général àddina bi yëpp benn gone ku juddoo ci biir këram dem da nga daane ko rey ko da nga maam nguuram nga yàqu yow yow mii loolu ci xel mën na ko xel mën na ko daw kon nag yaay insaan yaay ibrahima bii yaay dikk nag di daw ci biir léegi nag ba ngay daw nag ba dikk nag fi na ba dikk xàgg ci ma xaw ni xodde la naa ci làq bi làq nag ci nga mën a xeex ak xalqee bi nga xeex moom daane ko ci suuf yow fi ne ni sa bakkan bi lu moom sucër yëpp nit ki gone bu juddoo daa yeme ji koy ji koy lu ko neex kon nag bakkanam baa moom léppam mm-hmm. mooy namrootam ba mat waxambaane nam namroot moom moom mu ngi ca nguur ga léegi nag xaarisi ne ñoom ñoo dikk dem dem ca Ibrahima ga dem jël fa nag ci foofa nag ci xalil ba ñu jël fa nag doole dikk xeexal seen namrul ba dàq ko ci biir nguur ga xaq naa nekk jëmi naatiril xaqi bil xaqi nag naatiril xaqi bil xaqi ñun nag mi ngi nii ngay dem ba àgg ca jëmi naatiril xaqi bil xaqi maa maarif yi maarif yi nekk maarif lii boo léppoon de kon nag booba waa nga bàyyi ko ci maqaamab Ibrahima maanaam maqaamab xalil ba dikk ci maqaamab siddiq léegi ma ne kon nag man naa am naa naasir xaq bi xaq mooy taaqaq mooy taaqaq bihaa taallaq bihaa laa taxalu daay dayman fa fi daasin bihaa atay bu xiitul léegi nag nga dem dëstu nga jeex foofa xaqi am taaqu boo dikkee nag boo wàcc fi nag nga nekk jëndi naasir xaq bi xaq nag su ko defee nga mën a xeex nag yi nga xamante ni ñoom abo jaalak ñoom abo lu ma xamul yëpp nga xeex nga ndax fii ba tey moo tax yonent bi jaar min jaari asxar ilaa jaari akbar léegi jaar bu ndaw ba jeex na xam nga ba ngay fànnaaw fànnaaw yàggul tarbiya waaye nag ba nga dikkee ba ne nag léegi nag tey nag maa ngi namrud ñu yaa ca yaa ca combat léegi ak yaa sa namrud bi ak sa namrud bi ma sóob moom moo ëpp combat ma jóg moom ba mu dikkee moom doon ma nga noonu jàppante ak ñoom baaba mbëri yu ndaw mbëri suq-suq yi tey nag dañ ko dikkee nag ñu ki nga ne moom mooy roi des arènes bi moom lañ ko booleenteel kan Adama yàgg kan ah yàq Iblis ah dem leen ci li ko de Adama moom li ko ci ma xamal bi làq acca yàgg Iblis mu daanu Iblis acca léegi nag seetal noo mi nga xam ne moom daf di kii doom jëga xam ne moom la jur doomi boppam wax na dëgg ndaxte naa si bi làq moom mooy génne kii combat kii génn ndaxte roow du moo roow moo taxaw fi ne ak ak ak ak bi ñoom ñaar ñuy combat kon nag moom moo génn ki ko ki ko opposé moo raxal ba mu dóor ci suuf ñu dikk nag ba nga dikkee ci naaj raq bi raq Ibrahima taxaw na hmm. ba mu taxawee nag ñu ne acca Ibrahima yàq yàq yàq na président président toutes <laughs> yow yow Ibrahima yéen nga Ibrahima moo gën a rëy combat moom président toutes les àddina moom laa ñu ne boolante nga ne ko ah, ah, ah bëgg de Ibrahima yaa yaa yaa bëgg grande combat de bii mooy grande combat nag te bii mooy gem combat Ibrahima président tous les tous àddina Ibrahima nag ne waa baax dem leen topp moom ba Namrud xam nga ku ma lay boole sama sama soldat bi gën a tuuti mooy yoo moom la dugal affecté ko ca nopp kii wuu mu yóoxu yóoxu yóoxu yóoxu ba mu yàgg dégg mu ne waaw dagg leen dagg leen kii moom ci boppam moo koy reyee boppam mooy naasiril xaq bi xaq nam nekk naasiril xaq bil xaq moom moo jël bakkanam bar ne ko ma bakkanam namrud bi mooy naasir xam nga naasir seytaan bi seytaan moom mooy naasiru xaq bi làq moom Ibrahima Iblis eh, eh, Namrud nag mooy naasiru seytaan bi seytaan mooy boppa moom soldaar mi nga xam ne ko léegi da ngeen tëggal benn boppu or boo xam ne dafay mat bu ngeen dee dagg bii rek teg ci boobu ñu ne ko tey nga de <laughs> xam Ibrahima nga taxaw fa li moom ñu dagg bopp dagg mu daal di jox dafa dee Ibrahima daal na ko nag moom Ibrahima moo jël nag te boo déggee yëpp nga dégg bàyyi ma waxee nag noon noonam yi nga xam ne ñoo koy ñoo koy song moom gis nga noonu la leen di wéyal kon nag kooku nag nga àgg ci maqama naasiril xaqi bil xaqi yow yaa jël sa xàqu bii dimbalee ko xàqu bële ba duma xalqi bële ah ah taxawagoo de yow boo amee faati euh, bi nga xamante ni faati li ma uxliq nga am xaatimi li ma sabaq nga xam bil xaq xam na foo jëm de romb nga romb nga ay barrière waa xàgg ko de ñu ne ko waa ji waa ji waa ji ñu ne waa mu xàgg mu ne xàgg ko de ñu ne mu ne wal haadi kii may ñaan nga waxal moom mu defal la sala mooy kii xam ne mooy ñuy teg moo ñu gindi ila siraatika jëm ca sa siraat ba almustaqim sa siraat almustaqim kañu mën a puus bañ àgg ca teg ñu ci yoon bañ àgg ca sa waa ji rek wax ci dégg rek wax ci mu jàppale ñu wax na dëgg xanaa xamuloo ne yow ndax am na lu mën a jaar te jaarew ko ci yaram kon nag kan moom mooy mooy saayiroog saayiroog mooy wilaaya yàlla bu ne allah huwal waliyu laahu laahu huwa ci boppam mooy waliyu mooy lu bi allahu huwa al waliyu kon nag ñaata fa ndax ndax ñettaam na fa kon nag waliyu kon nag kan mooy waliyu wali haha kon nag fofu nak nak fa ngay jaar nak wa bo ci jaaré fo jëm am fa mo jëm ci karam man kay xamna fa ma tax a jóg nga dafa am ko ma convoqué xam nga legui li ñi dox yépp fa ñi fekki waaja moy fa waaja nek xam nga kané xajuma ca ya doo ko uti ci asaman kané ne xajuma ca suuf doo ko uti ci suuf kané xajna ci xolob jamm ma gëm dang koy wuuti ci xolob jamm xolob jamm nak jaar te dul fatih lima naasiril haqqi bil haqqi haadi ilaa siraatika mustaqim moo la defal loolu mu pare nga doog a dikk nag ci nga xamante ni moo la taxoon jóg nag ah wal haadi baaba nee na ma dëgg la waaye gars yi ne leen dëgg la waaye wal haadi ilaa siraatika al ah? ah, léegi nag nga mm-hmm. waa léegi nag a ah, yaa day man de yaa ma tax a jóg mm-hmm. ah léegi nag sa ah am naa fi ay ay ay ay kii de mm-hmm. da leen dàqoon nag dàqoon nga leen xam nga léegi da ngaa dàqoon ñett ci kaw <laughs> ah gars yi ya, ne ko ah yow yaa ma dàqoon fële noo waay def fi ah war ki bàyyi nañ nañ toog nañ waxtaan rek xam nga moo tax moo tax nga ne ko waxaala alihi ak fam del chat fii nii ah ca saahiram bi ñu ne ko Muhammad mu ne ko man nag mu ne ko ah kay xàq qadrihi ak xàq qadrihi moom itam mboole ma ca ñu ne man ci ahmad ci ahmad ba miqdaaril asi moom itam mu ne ma maa ngi toog de mu ne waaw acca ak yow itam kon defal ma salaat fi ñett yi ma fekk fii ndax ma mën a liggéey ak ñoom la ilaha illa la ndaxte boo defut fële doo mën a jaar si fii doo mën a agsi fii ndaxte fële moom kenn dafa nagul ko fa nekk kut moom moom nga de ko defal ma yaa may defal manumaa ne maa def dara nga dikk ba ci benn ba ci xamante ni nag dikk nag ba ci xaali ila siraatal mustaqim ah léetal kon nag dafa mel nag xar si nga ci waarul muqaddas waarul muqaddas faq la anna ka innaka bir waadil muqaddas mooy tuwaa ak si nga waarul muqaddas seetal kon fa nga déparé woon di dox ësël ëbën ësël ëbën ñaari tànka doxee foo de ba ne bu ñu ne ah foo jëm ñu ne xaatimi na xaatimi eh, ka eh, eh, xat xadmiya xadmiya xadmiya xadmiya xadmiya xadmiya ah ma yow foo jëm maa ci kanam laa jëm de ah acca seet seet xoola ñaari dàll yi ngay doxee fële tànk yi ngay doxee fële boo dikkee fa nga koy wëcc de nga dikk ñu joxaale yenn ñaari dàll mooy xadamaaya xaataaya ah bul fàttali la ko sax bu la ko sax te noonu da ngay xam fu mu la ko waxee léegi nga dikk nag ñu jox la ñaari dàll mooy xat mi ya xat mi ya xat léegi nag xag nga sumil ah waaw faati xaatimi faati da nga da nga mooy mooy eh, léegi moom nga doxal fële ah nga léegi xat mi ya xat mi ya naasiril xaqi bil nga dikk léegi ci nga dikk léegi nag kon na nga commencé nag dox ñaari tànk nag naasiril xaqi bil xaq bi ngay dox nag nag xat miya xat miya xat miya xat nga dikk nag nga dikk nag ba nga dikk nag nga dikk nag faatihi xaatimi faatihi xaatimi nga dikk nag naasiri haadi waaw noonu la naasiri haadi naasiri haadi xam nga kon léegi doxee nga fu ne ñaari tànk léegi nag ba nga dikkee nag fii nag ñu ne nag dox jeex na faqla naa la ka kon léegi xola romb nga xaadaratul qudsi ak fi nga xamante ni mooy baytul muqaddas léegi nag inna kabilatul muqaddas tuwaa léegi nag sumil sa ñaari dàll yi léegi nag yaay jëmi naatil ak bilaq ishab ila firawna na wa taqa léegi nag yow man nga léegi man ngaa xeex ak firawna léegi moo tax boo dikkul bañ jaarale fii man ngaa dem ci xeex sa firawna bi moo tax nag yow nag na bëri nga xeex ak ki nga xam ne mooy président tulle tulle àddina ba nga dikkee nag léegi nag mooy xeexu intérieur mooy xeexu bakkan xam nga nag xeexu intérieur boo diggee dafa isa dafa noo takka ah boo demee nag yéen a ngi nii yéen firaw na saay saay la ah ishaba ila fara noo takka foo xoolaal bu ngeen demee foo xoolaal xoolal lay noonu boo demee nag da nga koy wax wax nooyal waxal wax ju rafet ne ko man ñëw rek pour waxtaan ak yow nangam nangam bu fa dem def kuloo de saay saay la de moo tax bakkan dang koy nax da nga dégg ma ko wax sama kasse bakkan say say la boo xam ne koy nax ba jëpp ko dóor ko mudé waye bul ko dang koy bet de waye soko bet mu dugal ndax mo la upp doole lol nak non ngay def bakkan nga koy yongaande ko nax ba mu foog koy kii nga nga dag wa kay do ko ba mo witam bi nga dikkee nak ba dikkee ba Moussa dikkee nak seetal foo ko layinan ndax yow naa ci haqq bi kon ñaari haqq taxaw kon nag sa Moussa gi taxaw na sa Haaruna gi taxaw ñaari Haaruna mooy naasir mooy Moussa Haaruna dafa dikk di dimbale muusa kon nag moo ñu wan luy naasir xàq bi làq mu dikk nag taxaw nag ñaari xàq yi taxaw pour mën a opposé rek ki nga xamante ne mooy euh, mooy mooy Firawna acci jóg acci dem la ñun ñaar nag ca na kon na waaw léegi waaw ku dikku ci tariqa bi le ñu gémbee la fii ci jamono bii ma ndax man ngaa daane firaw na billaahi doo daane firaw na te boo fi dikkee fii jémbee xoo jémboo xoo ngembal gaa yi xanaa dikk sa sa baa xam bi bëgg a dikk ne man kay yow xoola au nga dikk yow nga dikk yow ñu gémb la nga dikk ne man maay gémbe man maay yonent bi man maay Cheikh Tidiane man maay Baye <laughs> moo tax gis nga moo tax gis nga maa de yàlla maa de yonent maay Cheikh Tidiane loolu ñi ko doon wax mooy ñi xamul yàlla ah. waaye fii boo fi dikkee doo toog na may yàlla may yoon doo ko dégg ndax nga fi ku fi loolu léegi loolu dañ dikk doon ko ah. maa yàlla maa da yoon damay Cheikh hmm. kenn du ko wax hmm. da ngay dikk doon ko ca suuf te kenn yëgul ca ah. ndaxte mbër mi nga bëgg a bett moo tax soo waxee ne maa yi rek eh. mu ne aa xam naa la yow tey nga dee de ji nga moo tax daayiratu kadmiya bi ñu toll ne daayiratu kadmiya hmm. doo weer li nga gémboo ak ki nga ànd ak doo ci weer de moo tax ñu tuddeen saadaatul malamitiya tijaan yetu boo ko de xale yetu xeexu xale yetu dafay soxla songoo ci biti Aliou moo tax jaamaar ne comme da am borom jaasi ji sa jësil waaye nag bi nga nañ nag ba ci tijaan yetu moom nag déedéet ah day daf ne laa tadriba abad latt bu lee bu fi xeex am bul dóor ku la xas neel pat rek ku la saaga neel pat rek ku la dóor neel pat rek seetal biñ dikkee ci camion bi nag yow dangaa ngaa gañe te yëguñ ne gañe nga moo tax bul wax ne gañe naa moo tax boo dikkee da ngay nekk ci maqaama malaamite naanu saadaatul malaamite cheikh naa satul maqaamat wa tënku karaamat maqaama boo amoon ne maa mën a dool ne maa mën a xëy na aliou bul ko wax satul karaamat karaama yoo xam ne moom la tijaan yi doon def bul ko fi wane bu ko fi feeñ feeñati de ndaxte xeexin fi ñuy xeexee fii bokkul ak xeexin yële de kon nag xamal xeexul malamité moo tax nit ñi li tax nag ñu échec day xamul téere biñ nekk nuñ fi xeexee soo xamoon nag su fekkoon ne da ngaa dem ca gembkat yi nga xam ne ñoom ñooy mbër waada ya mbër waada xam nga da nga dégg mbër waada ñoom ñetti ñoom ñi la ñooy nag boo dëkkee ñu xamal la da ngay dëkkee mbër waada moo tax Aliou buñ ko jëlee muy mbër waada fële comme songo dagg la ñu dikki fii nag ki nga xam ne mooy tijaan yetu bi ba mu dikkee muus dafa muus moom doo muus ndaxte xel xam nga moom moom mooy mooy kat mi yëg mooy mooy boo euh, euh, euh, nekk ci xel bi dafa muus den xaati moo tax waa waa waa turki waa turki ba dikkee attaqué ay nu bëgg a ay numaal ay numaat yi dañ dikk ci faas na ko Cheikh jox ñu ay gànnaay ñun am nañ njàmbaar ak fitiq mu ne déedéet bu leen xeex de bu ngeen demee luñ bëgg ay impog yooyu jox leen ko rek yéen te toog déglu ma gis nga boo xam moo tax fii boo fi dikkee rek jaay xëtër xëtër xeexoo saay tubaab yi jàppale moo tax gis nga ceddo yeeg tubaab yi bi ndikkee ku leen nuñ leen naxee ceddo yee nekkoon fii dafi jaay tàng dënn ak da rëy rek sëriñ si tubaab yi dikk na nga moom jàpp dañ def jaam léegi nag benn waaye dikk ci suuf ne pat rek fa seen xaalu yeex wi te te silli muhammadin wa yaa bu dara man jël sànn mu xam moom wax mu wax la fa man sann say an xayru haasa fa sën woo saqiimun xaliilun baatilun lan yu ajab waaw léegi nag léegi Sénégal mooy kan mi ngi nekk taxta zilli mu amad Muhammad keram nga Sénégal a ci ron keram Muhammad Muhammad keram nga waay waay waay maa bëggoon nit ñi dégg li ñuy wax li waay xam nu ñu koy déggee <laughs> ah ñu ngi ci ron silli mu amadin wooy yahbud rabban jala san wa setal ndax rëbb mooy borom suun bi ñoom rëbb bi nga xam mooy borom soxla yi waa Sénégal ñu ngi ci ron korom fa man sana say an xayru ansa képp ku yi bàyyi xel lu li ma waxee man Ibrahima Niass fa sënnuhoo njotoon sa qiimun dafa feebar xaalil wax ba dafa ràgg ràgg boo ko dégg mooy ko feeru kan lu wér ci baatu la nga nekk ay la caaxaan mooy loo xam ne mën taxaw lan yu ay li nga bëgg ñett yi boo ko defee du taxaw mukk ñett yi moo lay dal yow yow sa qiim nga xalil nga baatil nga lan yooyu Sénégal moom muy lan muy kon nag mooy xamu ne bàyyi ña na feeñ ci fii pour pour pour kii rek pour asar kan mooy Sénégal boobaa Sénégal mi ngi bokk ci rumoo saatu xayaatam mi ngi bokk ci li junj dina bàyyi Sénégal Sénégal lay sunu gaal kon nag ma dikk ne ko maam Abdoulaye yaay sunu gaal mbootam sa tur mooy Sénégal loolu moo waral tey Sénégal ay xam docteur sama ndax rek comme ndax xam nga ne mos gaal gi ma wàcce ma wàcce nag mbaal guy wa jàpp benn borom jub benn qualité génn mu ne borom manta mbaal fadul jaame gis nga ibi jub nim nim nim nim feeloo nim ko feeloo <laughs> ah, man borom feerukat yi wax dëgg laa bëgg <laughs> waaye borom feerukat boo xam day ne man la man la daf ñu yàqal suñu liggéey rek nañu jéggal waay dañ bu leen yàq xeex bi waaye kaay bu leen yàq xeex bi def kon nag léegi nag dem naa nag xaq si nga dikk nag léegi nag defal ma ca aalu ba ca xaq kadri ba ca miqdaari asim ñu ne nangul nañ la ko kon nag léegi nanguloon nañ la ñett ca kaw nga dëggu ca ñu indil nakul nangul la ñetti suuf nga jàng ca nañu jaamoo kële taxaw di ibaada nga jël ibadaatam ya kële taxaw ca maqaamu ya nga jël ubudiyam ba kële dikk ci ubudatu ji nga lii kat xusuusiinatakum inda kulli masjid biñ taxaw fi léewal jàpp leen seen rafet yi ca bépp jàkk yow mën ngaa dajal jàkkay Ndakaaru kon nag yàlla wax ne yàlla dégg na arab waxu ne al waxu ne konoon day wax ne albisu sol leen seen trois morceaux inda seen yére yu rafet yi yàlla nu dégg arab waxul def na xusoo jël leen seen ko xëy na seqoon yow la ngay jël si fa nga ko fekk jël si leen xusoo séentu ko xenda kulli xenda damaa bëgg arab laa wax arab xusoo jël leen xenda séentu ko xenda kulli siina bala nekkal ca ja masjid ba demal boo dina nga jëli siin la lay rafetal ca ca la jàkka dikk la la fay rafetal demal jël ko léegi nag jàkkanu boo luy jàkkana sol luy fa luy fa luy fa taar yow nag léegi dimbal naa la ba nga wàcc léegi nag fii bi nga taxaw soo amul sariya da ngay rafet doo ngay ñaaw de ndaxte boo bëggee matériel boo xam ne mën ngaa mën ngaa xeex bakkan moom ci kii nga ko jële de kon nag dama jëli sariya foofu soo bëgg a gañee teere tax rek xeexinu kaw ak xeexinu suuf bokkut xeexinu kaw tawhid la xeexinu suuf nag jaamu la xeexinu kaw tawhid la xeexinu suuf jaamu la léegi nag soo xeexee xeex kaw ba mu sotti nga dikk nag xeexu suuf ba mu sotti ñaari xeexi soo ko nga nga nga def jihaadul asqar ak jihaadul akbar xam nga jaar bële mom jaar bu ndaw la mm-hmm. way bi mooy jaar ponkal jaar fi nga dikkee nag jaar mm-hmm. ngay nek ak bànneex yi dangal yi eh, ceebu jën bi diggu koor gi lepp ñu ne bu ko lal de xam nga ne fi mo dëgg dëgg dëgg yalla fi dañ la bëgg jappal rek sa ji nga do rek mo dikk ma nga dakkon ci kaw ma mm-hmm. dikk fekk ko ci suuf mo mo la jappal mo tax dama lay wax dalé le leen amut doo te so leen ko da nga <laughs> ah te li ma li ma gën a li ma gën a jaaxal fii bañ dikkee gisoo leen de xuwa rek a fa nekk de waaw waa joxoon ca kaw moo léegi moo jàpp moo la jàpp rek ca kaw mooy kutim ta boobu lañ ko kutim fi xadrat xàq mu jàppal la ba nga dikkee fii laakin tajee laytali akwaani musique ba tey moo la jàpp daal fii moo tax mu fi la nekk di nga dëgg ba tey naasir xaqi bil xaq moo la dimbalee ci xàq ci biir moo leen ci xàq ci biti moom fii mooy nag ku tiim taba ak tajarayt kon nag léegi nag nga dem nag jël nga kon lu rafet kon nag beneen jàkk boo ñu ne baytu muqaddas xam nga dañ ne jàkka makka jàkka <laughs> baytu muqaddas baax léegi nag nga dikk nag ah nga dem nag ci nga xamante ni mooy néeg bu sell ba léegi nag néeg bu sell ba moom boo fa dikkee da ngay dem ca ki nga xamante ni mooy ki nga xamante ni mooy patron wilaya bi nga dikk nag mu jox loo xam ne ci nga mën a setalee sa néeg bi moo tax salaatul faatiha ak faatihatu kitaab ñu ne ñoom ñaar doo ñuy sëkk mën nañoo dàq sa biteeg sa biir ñoom ñaar waaye nag gis nga ñu ni ñu jëlee maqsad yi di ko sikkar nii rek suñ xel nekk ci àdduna du dem maqsad dafa dikk pour benn bële raxas sa biti bële dikk raxas sa biir ne ma wax ne ma wax foo ko jëlee bi saayiri sarci ci biteeb sariya wa noorul mubin ak noorul rabbi salikina ibrahima moo ko wax de borom maqsad yi moo dikke ne ma nag saayiru sariya faatihatul kitab noorul mubin salaatu fatih ñoom ñaar ni rabbi salikina bi laa amuñ benn fatiguement nga dem sa liggéey ba demal sa atelier ba yàqaluma la dara bu ma yàqal dara nag waaw yàqaluma la de waaw dimbal naa la ba nga diggee moo tax fa man barakal man looba fal sa saakiran li yow li la taxoon dikk mooy ma jàppale la ca sa ca biir ba nga baax la ma jàppale ci biti ba nga baax la demal liggéey la bu fi doxal sang fa illaa soo lànkee fa gis mu roy dañu ko piroo maanaam estel naa naa la eh, làmp sa làmp kër gi bitig biir léegi nag fayal sa droit say droit de man nag man kay dara la kay nangam nangam sariya daal di saaga sariya ah te nga dee de bàyyi na ma fay gis mu roy dañu ko piroo gis nga ko rooga lañ coupé ndaxte roog yi parañ parañ paraas booy saan mooy mooy su contour ba ah. contour ba la ñuy buddi ah. te nag buñ def gis nga fi ne nii kër buñ buddee contour ba ah. doo fa mooy doomu aadama boo xam dafa tërbiya ba pare ba mu tërbiya nag li nga xamante ne mooy droit li nga xam ne mooy droit mooy droit yi mu war bi nga xam ne mooy droit faydu defu ci dara ñu ne ko acci ci biti loolu a ba nag bàyyi nag kon nag boobaa dañu coupé leen naa ju ulee na mu ne ah boobaa nag du nga ci yoonu xalaku léegi léegi léegi yaa ngi yoonu ci yoonu yoonu baax léegi am nga ci yoonu xalaku fu ñu ko gisee nañ dem seeti ko ca Moussa Moussa ba mu dóoree Firawna ma ah dégg nga maam gañe ko ànd ak euh, dégg nga maam euh, ànd ki nga xamante ni mooy Xaaroona ànd ak ki nga xamante ni mooy kan Saamiri yu ànd ki nga xamante ni mooy kan xaar Xaaroona ñetti ñi la àndal gis nga ñett seetal ndeke ñett yooyu mooy nafsu xalqi bi ñetti ñetti nafsu yi ñoo di ko ànd ak moom foofu rey na bu ponkal ba mu ànd ñett yi nga xam ne moom la di kat ci biti ñu ne kuy kuy kuy kuy kuy ñu ne kuy kuy kii kuy euh, barham ibnu baaxara mooy borom xam-xam la saraar ya borom xam-xam yu mbóot ya di di tëkk lu ko neex lu ko neex mu am ci la lasraar ba léegi nag lasraar ba jay ko mu sóoru Muusaa ah gis nga gis nga sa bakkan bi taayoo ko joxalee joxalee bakkan bi cangal ko cangal ko so def ko jox doxal wuutal ko ay oto bakkan bi yow lay opposé léegi ne man maa fi toog gis nga sa gis nga kon nag ki njëkk opposé mooy borom xam-xam wala saraar ba ne mooy euh, euh, mooy balham balham nag dem dem dem bëgg ànd ak euh, waa Israël xam nga mooy Israël mooy borom cëri bakkan yi mu dikk ànd ak ñoom ne ma ngay xeex Moussa yàlla nag rékki ko kamasalil kalbi in tahmilhu yalhas wa in tatruku yalhas kon nag loolu mooy xam nga li tax suñu kii ñu niñ koy déglu mooy fii lañuy yaroo ñu xam ne ñun baaxlee guñ su ko eh, nga xam ne kon ni ko man fi ma taxaw naan lasraar lasraar ku ma dikk ma faj say soxla yaa ngi ci place bu balaamtul baaxuraa baaxala ko de baaxa ko de ndaxte da ngay dem ba léegi dootu mën su ko defee nag nga daal di fexe nag ah kon nag léegi Moussa nag alak na eh, Barham Saamiri nag mooy mëccoo ba ne len dal di tëggal ben yek ne len ah khasa ilaahu naa wa ilaahu Muusaa xam nga xam nga léegi mëccoo mom lu ngi gis rek yalla rek fi nek mu ne ki moy suñu yalla ji moy yalla musa dafa jiyoo mom rek saamir yi moo njëkk tëgg bu la neexee ci histoire demal ci euh euh sa sara yàquta farida bi dootul xarida boo demee da nga fa gis ki njëkk teug ci diina moy saamir mu jël foot ay ndëdëm ñuy teug Muusaa nga ca fa muy di yàlle ba Moussa dégg dégg nga maam di yàlla ba ñëw mu dégg ndënd yi ba mu dikkee nag fekk ba mu fa bàyyi xam xam na ko mu bàyyi mooy mooy mooy mooy Haaroon ne ko nag dama toppatoo waaye gis nga nag mu xat kilifa gu mag gi taa yoo demee bàyyi def ngay ngay nga ngay kii yow waxal la la war la moo tax xaar Haaroon Haaroon wax na lu mën gars yi faluñ ko ba Moussa nag poñe ko mu ne ko ban def ma ko ñëkk def ku ko def cent mille moo recommandé cent mille yow lu tax nga def dafa mën naa dama la ëpp gis-gis rek ba satu maanaam suro bii damaa gis loo xam ne moo tax muqaddam boo xam ne moo la ëpp xel moo lay dof la ba nga wax wàcc yàlla ne ko yow la kon loolu mooy cent mille yu cent mille yu am fi tey tey la fi cent yu gën a nekk dafa amoon administrateur bu taxawaloon dañu woon lan mooy cent mille yi yetu cent mille ak firxaw na yetu ah ak yaa xamante ni mooy barxam barxaan yetu ñëpp ñu ngi fenn kenn ku ci ne direction la léegi nag ku ci des borom ismulaay ak samba mooy nag xaaroo na moo tax nit ñi dikki ci maxtar li tax ma dikki mooy isma nag ñun fii ñu tax a jóg nit ñi koo ci dajeeg ismulaay ak sam man daal man daal man daal ismu man daal mbóot ya man daal sédd man daal gis nga xaaroo na ma ko toppoon ina xaaroo na kaana min xaw Musaa fa boo toppee rek xaaroon yetu rek fa nga jëm fa xaaroon jëmoon nga jëm kon nag ki mu kan la Musaa rek wa rek ak xaaroniyatu bi rek ñaar yooyu mooy day caw rek nga ma nga ma nga ma mucc booba nag da ngay taxaw ci maqaama naaciril xaqi bil xaqi taa yoo jàppalee dëgg di ko dimbalee fen yow yàqule nga dangay taxaw ci maqaama xaaroona ak muusa su ko defee xaaroona ak muusa du ñaar isxaba ila na dem leen yéen ñaar ca seen firawna mooy nag seen ca nafsa xalqi bii nga xam ne moom bu ko neexee mooy tëjali na may Firawna dikk tëjali na may Barham dikk tëjali na may Samiril dikk tëjali seetlu ñeent rek la de ñeent rek ndax passé na ñeent Firawna Barham Samiril Qaruna ñeent yooyu lu Moussa mën a xeex moom la mën kon nag yow ñii sa ñeenti cër yi nga xam ne bàyyi na li naf si aybun lil fuaadu aybun li ruhi aybun yow nag nga taxaw nag yow ak sa ayit yooyu di leen xeex nag soo leen xeexee nag doo ko mën a dem kon nag ñu ne kon nag Euh, wa miqdaar asim hmm. léegi nag ah waaw léegi xanaa léegi ah, jeex na ba tey fii da ngay commencé hmm. léegi nag xoola salaat léegi xam nga léegi li ngay xam ne mooy salaat faat moo neex hmm. dafa waa ji dafa jommi liñ ko doon gunge de koo jàng ba mu dikkee ba gis la mu gis mu ne subhaana rabbika laa ilaa xam nga na nga foogee woon xàqu bi ak yàlla ak rëbbu ak nang ko fekke dañoo juyo nga jaxle nga ne ay way subhan rabbika sedd na sarabu kan nga keub man kan moy kaabi yaw mi nga xamne ya ma doon gungi ci ba ba aka set Subhan set na rabbika sa ñu ne kan moy rabbul isati ki moy borom ko gi nu na mu ne moom passé na nañ ko doon melale mela ko doon melale yeep ñoo ki moo tax nag ku mel naka ñoom ñi nga xam ne ñooy toog de xaste ñu mel naka Omar Sall naan Cheikh Tidiane dafa nekkoon bit mitis laak bu ma xam rek yooyu ak ñi ko xas ay lañ melalee Cheikh laa yàlla na yàlla dimbal leen yàlla na yàlla gindi leen muy xam ko Cheikh Tidiane bu boobaa lii waa ji waxoon waa ji nag waa ji ba ba mu jàng ba ne waa ji man maa maa ma foofu la ma bëgg la ma maa yee si foon passé ko liñ koy liñ koy melal lii ak passé meloo du loolu de kon daal léegi nag ma dikk nag seet wasalaam wasalaamun salaam xaalal muftali yàlla ci muftali waaw lu tax nag waxu ne xaalal na bii na salaatu moom moo nekk ah doon daw ca salaatu laahu ba moo doon daw ca bi salaatu waa jii na huwa bii mooy daw xaalal mursaliina la ilaha illallah salaatu bële inna laa malaaka yusalluuna alaa nabi huwa lazii yusalli alaykum wa yukhrijukum mina zulumaati ila nuuri moom mii nag ba mu dikkee nag moom moo def salaatu wa salaam alal mursaliina kon nag léegi nag lu ci des ah nañ ko delloo borom yi bagaasam rek alhamdulilahi rabbil alamin kon nag alhamdulilahi laa kenn ko kon nag ay nga c'est gisal ni nga fànnaawoo fiyaat kon jël nga bagage di ko man dama doon jaar dama doon def sa yóog nii yëpp ndeke coow leeg naasir xàqeeg faatiha ak yëpp ndeke coow kenn fi nekk rek jël naa bagage jëla ko walhamdulilahi rabbil alamin acca tëj leen wi si wi léegi acca nag jàng leen ñaan leen nag seen soxla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla yàlla fa suñ soxla yëpp barka fàtte salaatul fàtte